Bonjour, bienvenue à Tatami. On va tatamiser ici à la plage de Diamalay pour la deuxième journée du Tatami Bodo Vacances 2024, saison 13. Le tour, le tour numéro 1, ce sera d'abord à Saint-Louis du Sénégal avec l'ensemble des Bodokas de la ville de Saint-Louis, de la région de Saint-Louis. Saint-Louis euh, nañ koy waxeeti euh, taiko industrie ni ngay nous waxeeti hein, dobok lañuy wax ñu ñew après buñ fa joggé nous inshallah ñu dem pour la troisième journée mu nek la quatrième journée plutôt mu nek lo xamné ñom Alassane du judo Iba Ndiaye du kung fu wushu et certainement nous aurons Khalifa Babacar Diouf qui sera l'invité d'honneur et l'ensemble des boudokas de la localité de Mbou. Thiès, Fatik, Nagagnou. En tout cas, mesdames et messieurs, restez avec moi. Je reviens dans un instant après ceci. Alors, vous entendez ces bip-bip Alors, cela euh, m'a été offert par euh, Djan. Jomai Djan du Vovinam Virodao, qui est le président de l'AVIS. Il n'est pas venu aujourd'hui, mais ma pensée et vers lui parce que Diomaye c'est véritablement un ami alors nous si des nous nañu xam ni dañuy dem jël pause dimanche jour jouru GAMU dimanche gamu pause là. Bonjour ñu si dañuy dem Saint-Louis le 22 Ignatiba j'espère que vous êtes prêts Wa à wa ou à ñëpp lew A sanc ba kenn warul des Sindoni on vous demande de venir à la plage là-bas avec le Budo Beach Vacances 2024. Si c'est un leen di waaw leen di bu un parce que T.Y. est un solo en tout cas on va démarrer je vais vous laisser voir ces quelques images. Thank you. un plaisir de rassembler tous ces Bouraka. Parce que pour que les armes sur le Sénégal dorment, il faut ñu grouper ñëpp loolu moo doon sama sama sama itteeke ñëpp jubóo bàyyi Saga. un adepte de de Budo de Saga. mais ça c'est grave donc maître yi fi jaar ba inculqué ñu le respect yal na defal jàmm. amiin ku mel Alioune Badara Samb ku Jacques Sow Nunez ah ku pas Bousso Combien de... na Ndiaga Seck ñu c'était un inspecteur de police il a fait le carré. il a fait un beau cartes du Sénégal il a fait ah des beaux jours de quartier Il ñëpp a pas yéen a ca jégalee il fi des tous les grands maîtres là vraiment c'est un plaisir quand je vois c'est un plaisir surtout c'est ah ben c'est vraiment c'est un plaisir ah, di wax que li ngeen tàmbali nañ ko continuer parce que dafa am éthique éthique mooy comme li di wax rek tasaawu di si xaar gis dafa juba doom ñëw doom bu ñëwee rakk ñëw ak mag loolu bu génnee on perd l'essence du boulot. Qui am nañ Chine ak les asiatiques comment ils vénèrent les anciens loolu laa bëgg ñu toog les asiatiques ni ñuy vénéré mag yi loolu laa bëgg mu dellu si parce que nit ñi léegi YouTube moo leen di jàngal mais boo toogee sa maître mu lay jàngal di la wax comme nii ñuy def nii boo fa jógee di am beneen toogaay booy def ak beneen teggin booy def man li may ñaan rek mooy lii buñ ko bàyyi les arts martiaux du pour saaga du pour xaste du pour xeeb nit et sachez que y a pas de démocratie en karaté li ñu doon wax ki jiitu moo lay ki jiitu li naan wa saabi xon wa saabi xon wa aleykum ul muxaraboon un je de l'axe. vous ok encore je suis là un je de l'axe mais tout en air. ici. à partir de cette position on peut tout faire tout faire ça ça ça ça mais c'est la porte de toute positions de votre attaque vas-y attaque hop ok 1, voyage, frappez, frappez, frapper. Ok plus sens mooy ne que ñu am état d'esprit état d'esprit bu nga xam ne euh, bu ñu nekkee budoka lépp looy def rek si sa àdduna dafa war a nekk budo ça veut dire que sa mental dafa da un mental très fort nga xam fi ngay jëm nga bañ a bokk ci dëng-dëng yi nekk ci àdduna environnement bii la wër même taw bi ngay def wala kata bi ngay def des fois di ko def te doo ko sentir te da nga war a dund ak kata bi parce que yow warootoo nekk nit ordinaire nit simple nii parce que da nga am benn sens dans la vie bu nga xam ne moom nga war a occupé defar forger sa personnalité gën a équilibré am ay mesures yoo xam ne da nga koy def si sa comportement ba boo doxee ñu xam ne kii la mais un pratiquant dafa war a différent ak ku deful pratique loolu laa leen yëgal merci beaucoup. mais li may wax rek mooy ci li seen seen loo euh, fondé te mooy. fexe ba bennoo li nga xam ne mooy discipline yi ndax grâce à moom moo tax man ma xam lan mooy commune Daon moo tax ma xam lan mooy li nga xam ne Nambudo moo tax ma xam lan mooy Krav Maga ak yeneen ak yeneen yoo xam ni moom moo tax ñu xam ko comme loolu da moom daf ñu sas léegi moom wax na sànq lu am solo mu ne nit buy def dara dafa war a def bés ëllëg mu am waxtaan bu rafet moom loolu tax loolu yàlla di wax moom li mu def te mooy fexe ba ñëpp nekk benn kon ñun ñoo moo ñoo ci des parce que boo gisee ay waxam sax day caaxaan mais ci biir caaxaan yooyu le day jàlle ay message yoo xam ni boo dul xalaat trop da ngay jàpp ne kii day wax rek pour ñuy re mais moom vraiment moom la am njukkal. ndaxte esprit budo bi ñëpp wax nañ ko pare jaaruñ ci jaaraat kon man moom laay sant di ko gërëm ci lim def te mooy rassembler tous les disciplines pour ñu xamante nekk benn tey tax na ñëpp nekk benn ku nekk da ngay sàmmonteeg sa euh, kóllëre moroom tuddante ay euh, ay turu saalak demalante dikkalante yooyu yëpp moom moo tax ndaxte man avant loolu man xaw ma woon yu bëri ci ci kii te esprit bi wax lu am solo avant mu ne woon njëkk da jàpp na ki def karaté moo gën kii def taekwondo wala moo gën di leneen mais li mu wax lu dëgg la man ci ñun laa bokkoon man jàppoon naa lu dul karaté du du du du budo man lu laa jàppoon de bi ma ñëwee fii laa la la connaître na yeneen tamit nag am na esprit bi ñu am ñoo bokk jubluwaay bi. dafa

rafetlu bu baax a baax euh, jotaay bi ndax it nag euh, donner des coups de pied et d'en recevoir rek euh, loolu rek waru waru nekk dundu doomu aadama dal war ngay jëlale di jéggale maanaam lay def nit ki mu nite ak nit nag nite ko gën moo tax ci baat bi humanité nekk benn baat boo xamante ni ah, daa ci déggee humain dégg ca nite bee ca tubaab bi ca wolof fa laa parce que bu njëkk ba même donte baatu aar mënut a génn ci arts martiaux yi comme on dit mais bu njëkk ba da naan dégg ban discipline ngay def mais léegi dañ naan ban aar ngay def moo discipline boobu il faut mu dellu si parce que c'est hyper important pour man amoon mon avis maître de salle yi kooku ñu ci xalaat comme ça ñu xool lu ñuy yaree xale yi parce que ñun ay éducation nag ndax samay kilifa ñoo fi nekk te bëggoon naa taataan ci taataan ci seeni xam-xam mais juste rek damay bëgg ñu xam lan mooy maître bu ñu ne maître parce que ñun souvent dañ naan sëriñu daara bi te pourtant maître bi ak sëriñu daara bi ñoom ñaare yam parce que souvent ku ñuy dem ba ka ne dama jàngi aar ça veut dire que dafa ës souvent moo tax ñu la koy jox kon kenn ku ne si ñun responsabilité bi ñu la jox bi lan mooy lan ngay xamee yow sa liggéey mooy ñaati nit nga defar defar nit mooy lan ku kenn amul ci moom yaakaar bu ñu la ko joxee nga fexe ba kooku dem ba yor njabootam ba toog ci këram nga compter ne am naa benn am naa ñaar ñooñu ñooy jege borom bi du ak wor rek motax nit ki parce que lolu obligation la sa sa borom c'est personnel mais bo nit c'est un plus lolu qui lay fekk sa donc nañu xol ñun ñaata nit la défar mo nit ku kenn amul ci nga récupérer koku ba ci société bi lolu avantage parce que tamit nit ki défalé défalé na na fexé ba yowit say sa tour rek nañ ci lu baax pour mu xamné yow référence nga ci mom ba ëllëg dina def dara parce que jom mo amatul Sénégal jomb mooy maître bi mi ngi fi newu fi su déggee lii dina ma xas su déggee dina ma mere parce que daf la war a xooree bëtu baay war la xooree bëtu ndey war la xooree bëtu meilleur ami kon yow li nga am papa ak yaay sax amuñ ko parce que bu ragalee wax dara papaam yow la koy ñemee wax bu ragalee wax dara xaritam yow la koy ñemee wax bu ragalee wax euh, am di jàmmam keneen ak keneen yow la koy ñemee wax kon donc image boobu noonu il faut ñu ne ñu ubbil suñu élèves yi mooy lan boo ñëwee gis ne chaque jour bu daa ñëw day sawar tey gis naa ko tey mu ñëw dal am na lu xew jege si ko pour xam lan moo tax parce que xëy na yow ci yow la ko ñemee partagé ak yow donc loolu rek laa lu may sànni maa ngi jégalu bu baax day gidee nit ki euh, maa ngi wax euh, dama bëri kersa mais légui kersa dafa manqué ci dëkk bi euh, manqué kersa bobu nak am mo waral lu bëri mais li nga xamni lola bëggone gëna intervenir mooy l'humilité li ñuy wax humilité waccé sa bopp fi humilité mo fi am so leen gisee maître yu fi nek grand maître yépp waccé sen seen lu waccé wuñ sen bopp de pour juste tolloog ñun dé mais pour ñu ñu mun ñu jël ñun yégal ñu ci kaw moo ñu waccé sen bopp parce que tay avion so leen ko xolé soko bëggé jëriñu il faut mu waccé boppam tant que wàcceewul boppam mënoo si yéeg ba pare mu yóbbu la si kaw maître yi noonu lañu ñu mel tamit képp koo xam ni dafa am xam-xam dëgg kooku mooy wàccee boppam parce que dafa xam ni xamagul dara mais ki nga xam ni dafa xamul dara moom mooy yéegal boppam xam ndax dégg ngeen wax bi donc nit ki nga xam ni moom moo am xam-xam moom mooy wàccee boppam pour mun a fekk si nit yi si suuf jël leen foofu mun leen yéegal si kaw en tout cas vraiment Je ngi leen di remercier bu baax sori parce que comme ni ma ko waxee kersa très xam nga rek ah, bon ah, ragal wax ci kaw nit yi la rek mais vraiment jotaay bi nek lo xamni ni ah, mën nañ ci ko partager encore merci. Pour moi, arriver à un certain niveau, il faudrait qu'il y ait deux classes. La classe ici pour enseigner pour technique pour développer le mental parce que le mental c'est une énergie pure qui dirige le cerveau le cerveau c'est un ordinateur qui enregistre et prélève tous les sens am manière entre gradés on peut se retrouver pour essayer de se de travailler parce que c'est au pied d'un mur qu'on connaît le bon maçon si entre on a des communications qu'on peut se faire ce comportement-là va jaillir sur les élèves après mais sinon euh, di dajaloo noni nii mburux ku nek wane ben technique dem ni li du tax euh, mu am distinction par exemple si on veut que ça se mu nek len lo xam luy comme ay avion comme ni ko ki waxee il faut que maître dajé parce que différentes disciplines ku nek amna lo loo c'est constructive dans le domaine de l'énergie interne et externe ñu travail yooyu dina tax ben harmonie bo xam discipline yooyu ngeen di yubusi élève yi élève yi xam yéeney kan tâche yi loo xam ne tâche yi seen taw interne tout ce qui est interne tâche yi looy def di xamal gars yi ñu bëri xamuñ tâche yi mais c'est chose de on va apprendre seen art de vie art de vie la wax amul âge amul 30 ans amul 40 ans amul 100 ans vraiment di remercier grand maître Yatma naan lii am na solo trop ku nekk ñëw fii xamante sa morom dafa neex woon ni di ñoo fee la force ñu gën a jàppante suñu biir xamante ñi ñëpp léegi amee doole merci beaucoup les gars. Maintenant, il y a des points avec l'aïwa. Moi, euh... xam ne am ngeen mbooloo buñ fa joggé dinañ dem Mbour Mbour aussi avec Alassane Ndiaye maître Alassane Ndiaye maître Iba Ndiaye du kung fu qui est du judo parallèle ngi le 29 après on fera la clôture

Boké Saint-Louis du Sénégal on sera là-bas Inch'Allah, le 22 Bourg, le 29 ici à la place de Yoff pour la clôture ce sera le 6 octobre Inch'Allah. en tout cas merci d'avoir suivi cette émission de Tatami on se donne rendez-vous samedi prochain Inch'Allah.